ñu ji régulariser aussi bande bi prix bi comme ni ñuy defee prix yëpp di contrôler carrément nga xam ko kooku ñu am fuñu dem mais fuñu baye ak ñom rek lo neex la jaay 15 dinañ la wut loolu ay kayit yu bëree bëri bëri mun nañu né ne so slogan la rek quoi xam nga pour apaiser les gens à ce que ñu bañ joy wala ñu bañ créer pour ku ku ci demul nga xam nga xalat né c'est quelque chose de positif bu nga ñu koy dund ñu comme ni ñuy dimbalee ñiy jaay ciép ñi jaay jën ñi jaay diwlu ak ñi jaay euh, nga xamni moy gasoil ndaxte kat bu seeree Macky Sall dégg ko da ngay jékki-jékki ni dégg ni wàññi nañ ko ñun nag bant mosuñu dégg wàññi nañ ko yokku rek la ñu dégg yokku rek bant moom kenn mosu ko wàññ lay tey première séance la boo xamante ni dañuy wax parce que ñun ay ouvrier lañu ay jàngalekat lañu te dañoo yaru lii nag dañuy lancé rek pour ñu jàppale ñu su fekkee jàppale ñu nag ah dinañ dem ba nga xam ne dañuy génn ci mbedd mi bu wala ne suñu bopp ba ñëpp dégg